message bi dafa am solo kon maa ngi leen di ñaan tuuti dal rekk wax ji du gudd xam ngeen li tax wax ji du gudd sama frère Barthélémy Diaz daanaka tënk na wax ji nekkatuñu ci jamono ay discours yu gudd jaru ko lenn rek laa leen di laaj li ma leen di laaj mooy ndax pare ngeen pour xeex li dama ko jaarale ci yéen ñi fi teew rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble du peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk échant ñi fi nekk nii tubarfakala macha allah ñépp xam nañ ndaje bu mel nii bët musu koo gis ndakaaru waaye dama ne ñi fi nekk nu ñu bëri bëri bëri bëri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 Macky Sall du gor Macky du naxante moo ko fi jële amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politique du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak i doomam ñi ànd ak moom loolu rek la xam jàpp na ni keneen ku kooku ku mu mën a tër rendi la fees la jaay yàpp ba wala mu seddoo ko moom njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak Macky ñun ñii ñëpp Macky Sall dina jaar suñu kaw. moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi nangeen ngeen xam ni bii paa buñ ko doore amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men booy mooy ban mooy dem leen bindu ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci list yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax 24 jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matul sax 24 jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak nit ndaw ñi fees fa dell dem bindu ji mooy premier degré xeex bi. deuxième degré xeex bi mooy Macky Sall nee na am na ñoo xam ne duñu doon candidat fii en 2024 xam nga suñuy wax xam ngeen ma mi di wax ak yéen ba fi ñu taxaw nii on est mois de mois d'élection présidentielle ba fi ñu taxaw nii candidat la waaye sama mag jii toog di Khalifa Sall Macky Sall jaayoon na ko doole 2019 nekkul candidat ma ne leen xalifa Sall day doon candidat parce que dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dul dem. Macky nee na te yaakaarul lu dul justice. magistrat yi moo waxaat leen ko. magistrat yi moytu leen seen bopp. parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall da jox xaalis. wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu newul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat moomu leen Sénégal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag dangeen di jaay ni soo waxee ñu ne force restera à loi la loi est la loi du peuple que Donc force restera au peuple sénégalais. man de naa leen wax man Ousmane Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def lu mu laaj dinaa ko def. xam ngeen. président xalifa sal bi mu tollee fi ma tolloon dafa bëggoon a won sénégalais ni moom homme d'état la bëggoon sénégalais ni moom républicain la bëggoon sénégalais ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république gu Macky Sall faalewu ma ko justice Macky Sall faalewu ma ko parce que ñoom parce que ñoom ñooy les or la loi dans ce pays ñoom ñooy les hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata la xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours du weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ j'assume man je l'assume je l'assume ba fu mu yem ndax ku fi seetaan gis nga ku fi seetaan ba ñu def la li lay def ba pare ñi ñëw ñëw di la jaay ay naan ñoom ñooy les républicains ak di la jox conseil fi ñu toog la ñuy toog naan ndeysaan prison sax la fa seet si mbokk yi on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal ay at juróom-ñeenti at ñuy xeex joxuñu ñu nit xaalis sàcc ñu xaalisu réew mi joxe ko digguñu nit ñi lu amut waaye dañoo bokk ak yéen ay xalaat ci li war a defar réew mi jële fi nger ak sàcc xaalis jële fi nooteel gi nga xam ne noot nañ ko senegal dog jag mbuumu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi seddale ko ci séddale bu maandu lii lenn la ci suñu projet bi ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex biñ koy door matuñu woon fukki nit di waxtaan ak senegale yi ngeen koy gëm ba tey mu yegsi fii nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi. Macky Sall Macky Sall ak quelques magistrats ne ñoom ñoo am fitu ne li askanu li ëpp li ëpp ci askanu Sénégal la ñu bëgg ñoom dinañ ko tere. moo tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mu ngi yaakaar ci ay milice jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministre yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu milice génnee songu fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR lay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen genn jàkkaarloog ñun APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gatsa gatsa xam nga ñan la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi. dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yu ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi 2024 changement commencé fi ba faw 2024 yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a xañ est-ce que di ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le 14 le 15 le 16 autorisation ou pas ñun ak Macky ak justice ak police am ak gendarmerie am fii ci réew mi police laay waxal ak gendarmerie ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ leen jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencé meeting bi jàpp nañu kaba bii dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jëlee ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance ñu ngay manifester Casamance waa Mbakke dinañ manifester Mbakke waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri dafa jeexal tak tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Ablaye Wade demee woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh Tidiane yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool may lancer nag un appel à nos de défense et de sécurité ñun li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise l'armée sénégalaise moom la sénégalais bëgg kenn ku ne ci ñun bëggoon na nekk soldat kenn ku ne ci ñun bëggoon na nekk soldat ñenn ñi jot nañ koo nekk comme Déthié Fall ñun ñii essayé nañu concourir sax buggoon nekk soldat parce que amul lu gën a jekk joxe sa bakkan ngir sa réew armee sénégalaise boobu yàgg naa sauver Sénégal yéen a ngi fàttaliku mai 68 professeur Ablaye li mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xam ne général Jean Alfred Diallo moo ko bindoon président Senghor ne ko l'armée ne te laissera jamais marcher sur le peuple te lii ak lii ak lii na ko bàyyi lii ak lii ak lii nang lii ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée là ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ngeen fa nekkal président dem na président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine, c'est une armée du peuple sénégalais. bu dee fi ñu jëm Macky Sall bëgg na def li mu def nous demandons à l'armée de jouer son rôle comme ni mu ko mos a joué te xam nañu nag li xewa ah. ndax Macky Sall li muy bëgg a def ci biir armée bi depuis quand aide de camp aide de camp kañ kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp au président de la république jël benn aide de camp général Sélé sa Sélé bugg ko teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armée républicaine bi du ko musa nangu je dis à l'armée vous avez le soutien du peuple sénégalais restez une armée républicaine restez auprès de cette jeunesse restez auprès de ces femmes, restez auprès de ces personnes âgées. Le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall. Gendarmerie nationale maa ngi leen di ñaan ñu delloo ci seen xel fi mu ne nii ku dem te kër góor gi ni ma toog fii rek xam naa ni lu ëpp 1000 gendarme ñu ngi ko yóbbu cité kër góor gi nañu delloo ci seen xel. ñun gendarmerie mënuñoo tere egg fi ñuy egg police mënuñoo tegg egg egg fi ñuy yegg parce que le peuple sénégalais est le seul souverain te kenn mënu koo tere yegg nañu bàyyi di essayer topp Macky Sall dans son aventure sans lendemain le Sénégal vaut cent fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule la gendarmerie n'a qu'à rester une gendarmerie républicaine la police n'a qu'à rester une police d'État te ñu bàyyi seen tappale yu ñu nekkee nii kon mbokk yi jamono di yu jamono discours yu bëri le 14 def nañ suñu meeting newoon nañ leen dinañ ko def ci nii wala ci nële le 15 manifestation sur tout le territoire national manifestation sur tout le territoire national te ma teel leen dànkaafu nag ñoom kenn du ma tànnal man ban yoon lay jaar loolu loolu buñ ko buñ ko dugal ci seen bopp fu ma neex lay jaar ci ndakaaru nu ma neexee lay daagoo dootuma ko nangu te le 16 nag c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu leen droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique la kenn amul droit ne nit ñi duñu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de parce que paraparaxe bi ñuy def jaru ko récuser nañu juge bi parce que juge bi mbokk la ci ñoom xarit la ci ñoom li tax ñu tànn ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récusé nañ ko na teg dossier bi ñu désigné beneen juge bu objectif le 16 mbokk yi yéen ñëpp na ngeen teel a xëy ñun ñëpp ñu ànd daagu dem tribunal loolu mooy wax ji je voudrais lancer quelques mots en français pour la presse internationale ici présente. Je voudrais lancer quelques mots.